monsieur le président Macky Sall bokk naa ci ñoo xamante ne ne ñoom ñoo taxawoon tem pour nga bañ a def troisième mandat jaareel nañ ko ci menace jaareel nañ ko sax ci njekk ndax bu ne rek luñ ci jublu woon mooy nga bañ a nekk candidat ndax fumu mu nar a yóbbu suñu réew ak nu mu nar a gàkkalee jaru Sénégal tey déglu nañ la ginnaaw bañ la xaaree lu yàgg lii ñu dégg tey dafa yokk fierté bu ñu am pour suñu réew dafa yokk fierte bu ñu am pour sénégalais bu ñu doon message bi xam nañ ne yombul xam nañ bu baax ne yombul lii nga wax ñu bari duñu nelaw lii nga wax ñu bari dinañ jaaxle waaye lii nga wax Sénégal nga ko waxal peuple sénégalais nga ko waxal donc ñu ngi la si félicité di la wax bravo jël nga décision boo waroon jël dafa jàpp ne nag réew soo si nekkee dafa am loo xam ne suñ ko posé comme acte dangay commencé commencer par rafetlu ko ñu taxaw si donte bëri na loo xamante ne ne suñu sañoon balaa ngay jóge fi nga taxaw si nga taxaw ci ay revendications yu ñu am surtout ci F24 waaye mënuñu jóge ci li nga wax jàll ci loolu directement te taxawuñu pour sargal la félicité la encourager la ñaanal jàpp nañ ni loolu moo ñu war ñu wax la nag ne am nañ fierté lool kontaan nañ loolu ci sa décision bi di ñaanal mu jig la di ñaanal Sénégal ci di la jox rendez-vous yi nu mu gën a gaawee pour ñu xool yeneen problème yoo xam ne war nañ ko régler mu jëm ci élection yi ñu jëm ak participation bi war nga xam ne dafa war a doon une participation inclusive fexe ba ñu war a bokk ñépp ñu bokk Sénégalais yi ñu ñu war a tànn ñu tànn ko nga dem ci jàmm Sénégal nekk ci jàmm ñu soutenir la yi ci lépp loo bëgg après présidentielle bi pour que le Sénégal ñu mëne ko gis fenen ak fenen ndax acte bi nga poser ñu mëne ko dégg fenen ak fenen ndax acte bi nga poser c'est un jalon bi nga tek dans l'histoire bu dul am fay bu mënul fay ñu ngi ci féliciter di la ci encouragé di la ci tamit remercier parce que défaloko sa bop rek Sénégal yépp nga ko defal jërëjëf